yonent sallallahu alayhi wa sallam nag bi mu ñëwee ak lislaamam lépp lu fu fekkoon muy lu baax moo xam diina bu ko mënoon di def wala sax nitu aada yi ñoo ko aada woon di def bu dee loolu lu lu raisonnable la lu baax la mu am ci ndigal ci boromam da koy wéyal continuer ko bu dee loolu lu ñaaw la lu bon la da koy supprimer par exemple ngénte da ko fee fekk mu accepté ko par exemple Thiès da ko fay fek mu accepté ko mais nag dana moderniser wane ne lii dugal nañ ko ci te bokul ci li Ashura yi da ko fay fekkoon mom euh, ñëw na ba gadaye Makka ñew medina niko ko Ibnu Abbas netele ci hadith bo xamni imam Muslim moko ko solo mu fekk juif yi nek medina diko wor mu laaj leen pourquoi ngeen di wor ta euh, muy 10e jour ci weeru Tamxarit ñu fàttali ko histoire ba ne ko puisque suñu yonentu yonent yàlla Moussa ci la ko yàlla musaloon moom ak banu la labal Firawna ak i nitam ñu di ko woor pour sant yàlla ci xéwal googu ci la yonent bi waxoon wax bu siiw boobu ne leen ñun ñoo leen gën a yell ci Moussa daal di euh, commencé moom di ko woor digal jullit yi ñu di ko woor moo tax kooku moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam woor na ko digal na jullit yi ñu woor ko wax na ci im gëneel boo xam ne mu ngi ci Sahih Muslim mu ne yaakaar na ci yàlla mu kafaara bàkkaarab année bi nga weesu yëpp kon dixième jour bi boo ko wooree bu la ko yàlla nangulee effacé na bàkkaaru at bi weesu yëpp bu ko defee nag euh, borom xam-xam yi ku mel ni imaamu Nawawi dana wax ne bàkkaar yooyu bàkkaar yu ndaw yi la ci ku teet yu mag yi waaye fekk yonent bi moom daf ne yàlla day effacé bàkkaar yi rek yàlla moom eh, ni mu effacé yu ndaw yi noonu la mën a effacé yu mag yi kon am nañ njort bu rafet ne ku ko woor bu la ko yàlla nangulee ñu supprimer sa bàkkaar ci année bi nga weesu yëpp waaye kam dafa bokkoon ci politique yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa buggul di niroo ak juifs yi ak chrétiens yi de turo ci ay jëf que loolu day indi yeddeel wala yu mel noonu bi mu ko commencé di woor am coow yu ci am yonent bi ne leen bu déwénee année prochaine incha allahu taala dinañ woor taasuwaa muy neuvième jour bi boole ko ak dixième jour bi kon boobaa dinañ wutee ak yahud yi ci dogalu yàlla euh, beneen année bi fekkul fi yonent bi balaa muy ñëw mu faatu waaye li ci am solo rek mooy kon yonent bi joxe woon na ordre ñu woor ko loolu moo tax ñaari bis yooyu takkal ne bokk na ci sunne yiñ ci sopp nga di ko woor bokk na ci bis bi bëgg nañ nga lell ci say we bokk na ci bëgg nañ nga tus ngelu ci bu ci nekk nag wax nañ ci ngëneel mais ñu ñu tënk rek lii yëpp boo delloo ci masalikul jinaan mu ngi fa boo delloo ci run bu Cheikh Abdul Qadir Jeylaani mu ngi ca bokk na ca nga seeti ku feebar bokk na ci nga jokk ci mbokk bokk na ci nga ziyaare ji borom xam-xam bu ci ne am na njëriñ bu ci nekk ziyaare borom xam-xam moom jërul sax kenn di la wax ngëneelam am na lu ma ci tuddoon léegi ci ginnaaw bokk na ca nga soppi sab dépasse maanaa yaatal sag njaboot ci ñam yoo xam ne ñam yu neex la bokk na ca nga bari loo cay jàng lu mel ni suratul ixlaas ak di ci def loolu ñuy tuddee xasbunallahu wa ni'mal wakiilu bokk na ca yi ñu cay digle it nga sangu ci maanaam nga fexe ba bis boobu nga sangu ci euh, cangaay googu danañ cee wax ay xeetu jàngoro yu muy saafara ak yu bëree bari bari bari waaye bi ci gën a fës nga xam ne ahlu sunna wal jamaa yëpp ci lañ dëppo mooy li nga xam ne moo di woor gi donte madrasu ahlu chia li ci gën a bari ci ñoom dañ koy bañ douze mbir yooyu ñu ca sopp nag ba ca mujj ñun mooy bi ñu gën a fasal mooy tawsiuna ala al iyaali bay wa fat loolu la ko tënkee woon euh, yaatal suñu njaboot maanaam nga fexe ba sa njaboot bés bu ne dundal leen lu war la puisque dépasse loolu ku ne xam na ko mais nag nga fexe ba buñ doon euh, dundee neex bisu tam xarit ñu dundee gën a neex bu ko defee lekk ba suur naan ba màndikoog dafa bokk ci yiñ ci bis bi euh, boobu nag mbayeen mbayeen yeeg ture ture yi mooy bi ñu gën a jël def ko nag ci suñu dugalaale ci suñu aada cere bu ko defee comme cere moo jàppandi woon euh, mu mën a am fépp xam naa loolu ñu bari dinañ wax pour waa cere defuñ soos wala defuñ leneen ak leneen euh, mais comme cere moo gën a jàppandi ci ñun te suñ cere boobu ak lu muy lu muy yàgg-yàgg ci ñun du ñu sàppi te am na nuñ ko defee comme ni ngeen koy defee yéen ba pare daanaka dang naan moo dàq yeneen yu dul yooyu bu ma mbayeen mbayeen yi summi damay wax rek li tax mag ñi taamu cere puisque moo gën a jàppandi ci ñëpp te boo amee rënd bu day boo ci def mu nekk loo xam ne dana la fàttaloo leneen lu dul cere loolu moo tax ñu taamu cere bi mais yow boo gisee ne sa lieu bi nga nekk wala sa leneen leneen moo fa gën a jekki it mën nga def leneen lu dul cere